waaw jaajëf sama gars yi salaam jàmm ku mbedd ni gas baa ngi ni yow leemaa ku mëcc wala waa dégg ko fay mi chef booy ji ji ji di teer éy booy grand mi si takk ma ne fu ne maa ngi leen di bëggee bu baax a baax di leen jaar yaa ngi ci Galsen sama game sur Equivox TV tey nag dañ seet ci benn band yi il se nomme Jella Banks euh, Jella from Grand Yoff from tout euh, plat ñaay cokkeer tund woowu yëpp tey moom lañ seet ci fas yéene waxtaan ak moom ci euh, projet yu jot a génnee ak projet yu mu nekk nii di ko waajal diggante ma Cool ak yenn jafe-jafe yu mu am ci yoon bi ba fu mu yegg si fu mu yegg nii yooyu yëpp dinañ ci waxtaan léegi-léegi mais avant ñu siy dugg dama koy bàyyi mu nuyoo après ñu dugg ci biir waxtaan bi bis ta jee la waaw ku baax ñu ngi siyaar jili di amaat kontaan te defaat ak yow émission donc euh, sant yàlla quoi parce que saa defee émission day kon damay kontaan defaat ak yow émission pour commencer maa ngi nuyu waa Grand Yoff di nuyu waa Dakar Plateau Euh, di nuyu sama waa famille yëpp di nuyu tamit sama village nataal fi ma dëkk yaayam fi mu laa Djilor yëpp maa ngi leen di siyaar waaw Diello Banks bàyyi xale yi. Diello bàyyi xale yi avant ñuy dugg ci waxtaan bi damay dama daan dégg Diello Banks from Grand Yoff mais léegi damay dégg Diello Banks from Toupla loolu lan la. Diello euh, Grand Yoff la juddoo Grand Yoff la juddoo te ba léegi sama. sama sama extrait fii laa koy wutee mais à moment donné ci sama live dama dañ ma dañ ma toxal yóbbu ma plateau pour ma continuer foofu sama jàng donc am na benn partie sama jeunesse boo xam ne fa laa ko defee voilà loolu la quoi. loolu mooy waral ñaari identité yooyu ngay faral di. noonu la demee loolu loolu loolu rek la waaw du léegi Diallo dañuy dugg ci biir projet yi jot nga génne euh, ñaari mixtape euh, benn mixtape ak EP. ak benn EP euh, mixé bu njëkk bi moom mooy ñamu bët sa suufu bët sa suufu bët euh, satisfaction am nga ko ci wala. waaw sa suufu bët doon na projet boo xamante ne xam xam nañ si Jello Banks ci beneen aspect quoi c'est-à-dire que wan wan wane naa si leneen loo xamante ne bokkul ak série de lekku bande yi ma doon def donc euh, du du du du man maa lay jox information hip hop Galsen dañoo am problème mu entertainment. voilà donc projet yi génn te maanaam récolté wul tellement tellement de xaalis bëri na donc euh, te du au début du loolu lañ ci doon du loolu lañ ci doon euh, du loolu lañ ci doon viser liñ ci doon liñ ci doon viser mooy artiste bi déjà nañ ko xam deuxièmement nañu xam ne du rap kese lay def c'est-à-dire que liberté artistique bi mu ngi ci moom ak euh, li ci des mooy. c'était un début daal noonu laa ko mënee waxee. ñu gis euh, sa suuf bët mu nekk projet bu nice jeela mu ay sound yu doy waar yi nekk si biir projet bi amul sound boo ciy déglu sa doon nangu ñu toog quelque temps même pas un an jeela génnewaat beneen beneen beneen mixtape euh, muy sa projet bu nice boobu bàyyi xale yi lu waral nga taf-tafee ñaari projet yooyu. Euh, du ko tuddee taf-tafee parce que dama toog lu yàgg génn mu c'est-à-dire que bi may bi may bi may génn fekk ni ñor naa bu yàgg donc loolu liggéey boo xamante ne defoon nañ ko ay at si ginnaaw la c'est-à-dire que son boo koy boo ko boo ko teewee en stock mun nga mujjee doo ko génnee parce que da ngay dem di yéeg level ci ci ci ci ci benn moment boobu nga koy mun a génnee am si satisfaction wala nga am loo ci wone donc EP boobu dañ ko génne woon mayee ko jaayuñ ko c'était gratuit pour tout le son yoo xamante ne nii mi ngi woon ci placard bi ñu génnee ko may ko gars yi la euh, damay delluwaat si li nga wax léegi mooy bi may génn ñor naa foo nekkoon ba yéex a génn euh, du ma ko woowee yéex a génn parce que dama commencé hip hop nekkoon Dakar Plateau mais destin bi mooy dama waroon ñëwaat fii Grand Yoff pour def benn apprentissage bi ma commencé hip hop maa ngi woon ci benn groupe bu ñuy wax Street Gangster man ak Ndiol Bandi autant maa ngi maa ngi doon jàngee pédagogue fii bu Grand Yoff ci laa amee yeneen fréquentation yoo xamante ni ñu ngi woon fii ay boy rappeur cest que fii laa njëkk a duggee studio biir Grand Yoff fii laa xamee luy taxaw si kanamu micro wax après dégg sa bopp ci ordinateur bi ci baaf li fii laa ko xamee Grand Yoff donc yàlla xam na li muy def quoi fii laa juddoo. loolu noonu tamit fii laa ko njëkk amee par la suite ma xamante ak waa jaamiru ñu am lu ñu def si man am confiance bu def si man am musique def si man euh, ma yokk ko ak li ma li ma li ma yoroon. Euh, nga xamanteeg waa jaamiru ñu am lu ñu def si yow ak li nga xam dem moom mais dan gis euh, sa sa xaritu tey doon noonu suba. soo déggee ma wax la loolu sa digganteeg waa Jahmerue am na si yenn membre yoo xamante ni wala benn membre boo xamante ni mi ngi si groupe bi sa yéen ñaar ñëpp jàppoon ni yéen ñaar mooy gën a naaj si groupe bi quoi gis nañ ni réeroo dafa am muy sa diggante Karbala léegi lépp naaj wala ba tey. Euh, sama diggante ak Jahmerue laay wax. parce que ah, non man Karbala laa tudd. waaw xaaral xaaral ma il faut il faut il faut ma ñëw si loolu noonu tamit parce que ñi di déglu mun nañ bañ a comprendre. sama diggante ak jaamiru amul benn problème amul benn problème sa dire que jaamiru bi muy sosu dafa sosu quelque temps ma egsi jaamiru bi muy neex man fekkee naa tuuti ci bi muy nekk ci bekoor cest dire que amaguñu woon studio yu ci bëri nekk fi woon comprendre bi ma fi nekk studio mi ngi fi après après bi ma bi ma fi nekk la studio ñëw te boobu noonu ki ngay wax noonu nekku fi woon donc man je ma me considérer comme membre fondateur ci Jahmerue la dugalul la woon ci biir group bi booy nga woon wala nu demee noonu. waaw xëy na booy laa woon tamit. wala jege bi nga leen jege woon des fois jege tamit day lor artiste. jàpp ma ni jàpp ma ni booy lañ ma jàppee woon parce que studio bi amoon na quatre clés su ma juumul te man maa yoroon benn bi te membre Jahmerue ñi nekkoon ci kaw ñi ngi nekkoon cinq. kon gaw ma ni booy lañ ma jàppee woon quoi cest dire que xëy na am na benn préparation buñ doon jéem a def ci man voilà te mu ngi nii quoi instant bii nii mu ngi fay succès nag yàlla moo ko yore man gaw ma ni ay nit moo ma def lii wala nit moo ma def lee ngay taxaw di ko wax télé loolu day mel ni gëmatoo borom bi parce que nit lu mu la def sax mu dal la borom bi moo ci ànd. loo bëgg a wax foofu. que gëmuma ni nit dina ma téye si sama carrière Diallo <laughs> a xool quoi message bi raxaale si ñu bëri quoi. non du tout man ku ma ku ma ku ma sa déglu samay interview yi nga xamante ne ni man duma ma bëgg a wax dara di ko di ko wéeri wéeri. wax boobu xam naa ko moom mais dañuy bañ taxaw foofu noonu di indi yeneen polémique xam nga dañuy dellu si si biir projet baayu xale yi titre bi lu tax nga tuddee projet bi baayu xale yi. mais baayu xale yi ci ci baayu xale yi musicalement. musicalement kan ci sama génération ngay taxaw fii nii di ko tëkkale ak man musicalement. génération booy ñu ngi bomb ah Diallo. ñu loolu leer na mais ci artiste bu complet laa lay wax. artiste nga ndaanaan nga moom. waaw léegi côté boobu noonu bu bu weesoo loolu tamit xam nga rek entre rappeur foog nga tooñ booy wax leen lu leen naxari te ba léegi nii mu ngi leen di naxari ah. xanaa du loolu moo waral booy tout le temps di génnee sound di la classe tout le temps def ay publication di dal sa kaw mais fu ñuy jaaree mooy si soñoo bi. waaw. bàyyi xale yi yow bi ngay tudd sa projet bàyyi xale yi xamoon nga ni lu ne mën na la ci dal. lu ne boobu noonu ngay wax ni mun na ma ci dal moom laa ci done viser sinon bi tamit mooy sama premier moyen de communication cest dire que bu ma toppee su ma toogee noppi huit mois gars yi dañuy wax si sinon bi. la preuve temps bi ma toog nii nopp yëpp kaay ñu ngi xëy di wax ci chignon bi di ma clash di si jaar mooy li ma la wax sànq rek boo ma clashul si chignon bi amuloo foo may jaar donc du ma la tëj ma tëj buntu tëj palanteer ma lay may si loo wax rek. nga may nga may booy chignon bi ñu fay jaar. chignon bi may leen bàyyi xale yi pour ñu wax. léegi ñu dugg ci biir projet bàyyi xale yi projet bi nu mujjee. waaw projet bi def nañ ci def nañ ci vidéo def nañ ci ay communication. defal nañ ko tamit euh, benn showcase voilà quoi defal nañ pour man defal nañ ko promo bi bi bi bi doy ci ci EP waaw après ça nag dëxañu nañu pour liggéey album. dinañ dinañ ñëw ci album bi mais avant ñuy yegg ci album bi gis nañ projet yi moom projet yi euh, bàyyi xale yi moom ci benn sound boo xamante ni man daf ma marqué muy loobi loobi bi nga defee at moo flow lay xaar pour vidéo loolu. Euh, defoon naa ay démarches nag pour vidéo ko mais bon par la suite déggoowuma ak waa ji quoi. Euh, producteur bi wala caméraman wala kan. no ki ma defal son bi. Edmo Flow. waaw. lu waral ngeen def featuring nga soxla ko vidéo vidéo bi mënul am. je sais pas xëy na yéen boo ko boo leen question bi dina kii mais def naa li ma waroon def. expliqué naa ko envoyé naa ko scénario bi woo naa ko donc. Euh, def nga li nga war a def yëpp daal. def naa li ma war a def yëpp te jaraluma tamit ñu may laaj may nëbb nëbbal wala may laaxal laaxal di rafetal affaire bi dañ koy waxee nu mu nekkee rek c'est la vérité quoi waaw loolu. sa digganteeg One Lyrical. amul diggante. am na benn fit bu nu gis. nga dugal ko ci sa projet sa fit boobu pour man ci projet One Lyrical la waroon dugg. Mm, waaw noonu la demee noonu la demee am na histoire bu nekk ci ginnaaw mais instant bii nii nii nii nii comme sama retour bii nii mooy waajal du ma du ma du ma may kenn koo xamante ne nii damay wax ci yow ci sama talent lay sa sama talent laay valoriser parce que dama am loo xamante ne nii cest dire que ëppale naa leen ko. muy diversité diversité mu ngi si man macha allah donc du ma leen topp ci ñoom li ñu mun kese damay dama moment bi nii dama changer stratégie. maanaam sama changer stratégie loo bëgg a wax foofu. dama changer stratégie maanaam du nekkatuma fi di dóorante ay coups. kon jeela min doon gis mi xuloo tey fii jàppal fii bàyyil fii nekkatoo si yooyu. nekkatuma ci yooyu. parce que dama laaxatu liggéey dama laaxatu liggéey musique donc euh, te seetaan tamit ay documentaire toog ay nit yu am xam-xam xam ne légende mënoo ko nekk ci ay coow déedéet sa musique mënoo ko exporter ci ay coow kese-kese la preuve xoolal hip hop Galsen depuis ñaata at ñu ngi fii est-ce que ñu ngi international waxuma la nag concert yi nga xamante ne nii dafay am benn groupe bu nekk itali organiser benn affaire invité la ñu ne waa ji mi ngi def concert itali wala mi ngi def concert Espagne waxuma la loolu cest dire que nga def musique ba ay espagnol bëgg nga teew foofu la ñuy waxee. le contrat jox la date bi. merci est-ce que loolu mi ngi am hip hop Galsen instant bii nii. voilà mi ngi noonu pour man ci loolu lañu ñu war a mun a gën a focus te tamit ñoo xam ne hip hop wala musique boog du dox buñ ko defee ay pàcc pàcc kii far fii kii far fii sa artiste bu génnewee loo xamante ne baaxul sax nga ne moo fi mun du loolu quoi. loolu fans yi ngay waxal wala. waaw fans yi laay waxal. bépp fans yi fans yi moom euh, bu nu xafee ba bëgg bëgg na même booy génnee ay luut sax lay béggee waaw dañu lay bëggee mënuñ la ñàkk bëggee. Sénégal danoo bëgg lu monotone danoo bëgg lu lu lu lu lu lu naay sul quoi man dama koy faral di wax boo xoolee ba ci mbalax bi ñu nuy tooj boo xoolee ba ci rab bi ñu si bëri ñu nuy tooj doo comprendre quoi. waaw loolu laa lay wax ni donc artiste bu fekkente ne nii da nga koy follow di ko pousser mu jëm kaw bu tegee ko wala bu wàccee niveau pour man war nga ko ko wax war nga ko xamal. waa ñu nekk ay fanatique mais ñu nekk ay melomaan man par exemple man avant may nekk rappeur dama bëgg musique ba pare dama nekk melomaan ba pare damay déglu tout sorte de musique indo sax dama koy déglu pour am lu ma si am donc du du du du parfois nga déglu musique boo xamante ne xamoo sax lu nit ki di wax mais daf lay neex voilà loolu pour man loolu noonu la ñu war a liggéey moment bi ñu toll nii. mais lan mooy lan mooy problème mu Dieyla ndax Dieyla bu dee ay sound yu yaa ngi koy def bu dee ay vidéo yi am qualité yaa ngi koy def mais fi yenn booy toll lu tax duñ fa gis jeela lan mooy problème bi lan la Dieyla manqué ba yeggul fu booy yegg tu prends li booy di def dàq ñu la ko mais li problème bi lan la. yoon la rek. yoon bi la la booy gën a xam wala. Euh, peut-être peut-être que oui peut-être que no mais man dama jàpp ni yoon la maa ngi ci yoon bi lu ne mun na ma si fekk. loolu laa jàpp rek. jamono bi dafa am benn coow bu jub seen génération ñoo koy def maay king bi maay king bi jàppal maay king bi doo king bi maay king bi yow yaay lan. man doxuma doxuma ci affaire boobu noonu doxuma ci direction boobu. boo toog di dégg ñuy xëccoo king nu mu lay def. waaw dañu xamul lan mooy king rek pour man dañu xamul lan mooy king moo tax ñu koy xëccoo. mais buñ ko xamul duñ ko xëccoo. xamuñu lan mooy king. king moom est-ce que boo demee ba nekk king sax di nga liggéey liggéeyati quoi parce que king da ngay toog rek lépp di la fekk si. waaw noonu la demee noonu la demee donc euh, Sénégal da ngay gis artiste boo xamante ne plafone na c'est-à-dire que dafay toog benn deux ans boo xamante ne maafe rek la lay jox. la même chose la lay jox chaque jour vidéo yi ñooy changé wala beatmaker yi ñooy changé seen façon bu ñuy def mais rappeur bi la même chose la lay def cest que dafa am na problème pour dévier def leneen loolu la rek. yaa ngi natt durée ba tey wala. Euh, question boobu dama koy téye ba ci kanam réponse boobu du moins. koy téye ba si kanam. waaw pour mu pour pour tontu si. jëla kon dafa mel ni du garaaw nanu bañ a dugg foofu comme bëggoo ci wax eh, mais mooy la mais seen link ak xumaan ak euh, kayiti mi ngi naa. waaw sant yàlla ah. ñu ngi ñu ngi ñu ngi sekk jàmm sekku ñu coow quoi coow amul suñu biir. label ba yaa ngi fay dem ba tey. Euh, gëj naa fa dem nag après diir gëj naa fa dem. yee Jalla gis na nañ yaa ngi waajal benn album yow ak Cool 10 euh, yow Cool 10 seen link avant album bi daal la. Euh, man ak Cool 10 comme ni ko sama mbokk lutteurs yi di waxee dañu bokk ay mbapat. c'est-à-dire que bokk ay concours xamante nañu avant ku ci nekk di démarqué wu. parce que du lu nu fooge woon quoi yow ak Cool 10 kenn fooge wu ko woon moo bu buñ xëy xëy gis affiche bi yow Cool 10 ngeen waayal album day jaaxal ñu bëri. waaw man du ma juger artiste ci compte Instagram am wala ci vue yu muy def. non du côté boobu sax laay waxee mais maanaam yéen ñaar duñ leen faral di gis quoi te ñu bëri dañ jàpp ni yéen ñaar peut-être jotewu leen defoo leen dara mais duñ leen gis ngeen di ànd. waaw noonu la demee xëy na dañu bokkul woon ay fréquentation mais albumam tout récent bu bu bu mu koy génnee daf ma ci invité woon donc man ma nekkoon ci ay ci ay xat-xat ba mujjeewu ma ci posé comprendre nga mooy son boobu noonu gàtt xel. mooy bi ñoom naara pii beeg waaw ñoom fëleuse bi. saa mu nekk sound bu dof comprendre nga donc loolu noonu rek. pour man signe de respect la quoi def sa album nga bàyyi ay artistes yu dul jeex ñoo ñoo xamante ne ni am nañ divers facettes mu choisir ma si man donc dafay dafay c'est un honneur quoi moment boobu noonu ma nekkoon ci ay xat-xat ba mu jéew ma posé donc ñu garder woon ay link yu nice bokkoon bokkoon nañ tamit ay fréquentation te ba léegi nii bokk nañ ko cest dire que dañu dañu dañu musul affiché wu rek mais ñu ngi doon sekk jaamu bu baax a baax a baax. album bi ku nekk si ginnaaw lu ngeen waajal yow ak euh, Cool Diss album bi. Euh, waaw ku njëkk a bi. album bi idée bi ensemble la quoi parce que au début man kersa daf ma jàppoon quoi si le fait que mu invité woon ma ci loolu noonu ba pare posé wu ma après si laa ko ne am na benn bit bu ma yore quoi nañ ci def benn affaire biñ ko defee mu nice après par la suite ñu toog gàlleem man ak moom di waxtaan quoi di waxtaan ci hip hop di waxtaan ci àdduna mu mu tegal ma benn son bu mu def bu boo xam ne daf ci defoon benn couplet ak refrain ma son bu nice ma langaamu si son bi ne ko booy bii moom dama ciy posé mu wax wax ma ne ko damay siy posé par force ñu dem studio ma posé mu nekk ñaari son nice ko mun ne ko mais bandi affaire yi mi ngi nice de mun nañ ko def projet mu ne ma waaw nañ ko def cinq titre ñu ne ok ñu yokk si yeneen ñaari titre affaire bi jël forme gën a rafet donc aussi di que ni buñ ko defee ëppee mun nañ ko ñàkkal fayda te commencé woon na jël allure album moment boobu noonu te euh, expérience dafa baax si àdduna bi ma génnewee sama mixtape reproche yi ma ci ab yi ma ci doon am lu bëri mooy lan moo tax nga tuddee ko mixé parce que conception bi conception album la donc li ma daloon bëgguma mu dalaat ma ma ne ko nañ ko def album. bu ci wax. naa la ci naa la ci wax daal benn benn benn mot boo xam ne mi ngi ci. bopp. bopp. bopp daal mi ngi ci. waaw <laughs> ah, baax na dañu xaar kon comme bopp mi ngi ci ñun dinañ eh, jéem a pëgg xel mi yee ko xool lan la léegi Diallo si lu mu nekk actuellement lan la. actuellement maa ngi instant yii nii dama dama bàyyi samay projet focus ci affaire boobu noonu parce que projet du ndaw euh, loolu bu ko weesoo tamit pare naa sama album ba pare euh, pare naa tamit ay single yoo xamante ne war naa ko génnee durant année bii nii année deux mille vingt et bi moom di ñaan yàlla def si def ci sutura. Euh, respect Jalle ñu ngi lay béggee bu baax a baax waa Equivox TV Galsen Sama Game ñoo la seet si woon ñëw fii si wiki wiki di membre jaamiru xam di wax ni yow ak waa Jamiru ba tey mi ngi naan na fi ñu ko defee bitig bi ki ko moom Mamour Jamiru la muy Wiki. Euh, di delloo di la di la delloo respect bi parce que hip hop Galsen mun nañ ne neexul liggéeyal quoi parce que parfois da nga siy dafay effort mu jël si récolter ay saaga wala ay wax yu ñaaw parce que ñu bëri ñu koy ñi koy ñi koy côtoyer comprendre ñu jàppee ko musique kese. te musique à la base c'est pour féexal ay xol c'est pour évader nit ki dugal ko ci beneen monde loolu la quoi donc euh, dañ leen siy félicité yéen ñëpp yéen animateurs yi euh, am na am na am na liggéey bu nice boo leen ci boo leen ciy def donc dañ leen ciy féliciter bu baax su ma jugee foofu noonu tamit maa ngi nuyu membre Jahmerue yëpp waaw am na lu ñu am na lu bëri lu ñu loo xamante ne ni def nañ ko ci man te mënuma mënuma toog fenn di ko ruso wax wala mooy am réew wax ko parce que lu ñu def ci man rek su ma toogee ak sama jeune frère damay essayer def ko ci moom parce que xam-xam dañ koy partager loolu laa gëm quoi donc euh, maa ngi bëggee waa jaamiru yëpp di leen wax ni tamit bon gars na mën nañ leen pourquoi pas ñu def benn affaire bu sew. yow xam nga ni jaa bi mënatul ñëwaat yow jéem a xam nga loolu bu naxante léegi jéem yow ba beneen yoon. <laughs> non li wax noonu xaman du am. mun nañ mun jaabi mun na taxawaat. yow asu newatu fi wiki bàyyi na. waaw ci nga. Karbala moo fi dégg dara xanaa yow Karbala ngeen représenté jaabi. mais gars yi ñu ngi li li li ñu doon def ñu ngi koy mun ba léegi de. Ah, mais danoo bàyyi. Euh, moo tax ma ne la. gars yi namm nañ leen. yow yaa leen di xaar. c'est-à-dire que nostalgie. xaar loo xam ni gëmoo dina amaat loolu. yow xaar ñun xaaruñu leen man moom sama gëm-gëm. sama gëm-gëm mooy ay ay grand yu bien lañ et que lu ñu ñoom lu ñu lu ñu lu ñu yootu rek mun nañ ko jot te bu demee demeewee nii jaami ruu tas seen xol yu rafet la moo tax c'est-à-dire que dañuy jiital problème mu jàmbur teg seen bos si ginaaw waaw yàlla nag mooy dogal quoi def nañ fi temps bu gàtt waaw yëngal am na lu rëy tamit lu ñu fi def biir Grand Yoff pëjoomu un million ñoom ñoo ko mus ñoom ñoo ko njëkk a teg fii ngandee dofu pëjam jur boobu noonu c'est-à-dire que man sama bopp joué wu ma mais kontaan naa noonu la demee. concert boobu amatul. du ah du ma ne du fi amaat de. waaw mais liggéey moo koy moo koy moo koy tegaat fii biir biir Grand Yoff ñu ngi ñaan yàlla may. ñu ngi xaar yow nga def ko. ñu ngi ñaan yàlla may ñu doole boobu noonu ba ñu def loo xamante ne nii équilibre équilibré na ak grand yi li ñu fi def. waaw loolu la woon Diéla Banks la woon bàyyi xale yi. dafa leer ñu ngi koy bëggee bu baax a baax moom Diéla Banks bàyyi xale yi moom lañ seet si woon euh, di jox gars yi rendez-vous beneen yoon Djily euh, Der la woon from Equivox TV jaajëf sama gaay yi ba beneen yoon respect yi ñëpp di bëggee sama caméraman moo xulle maa ngi koy bëggee bu baax a baax ñoom El Hadj euh, DG maa ngi koy bëggee bu wërëwër monsieur Seck respect yi ñëpp jaajëf.